m'appelle Nicolas Ndiaye, je suis député à l'Assemblée nationale et secretaire général de la Ligue démocratique. tax ñu ñëw fi nag mooy sàkku ñaan sàkku ci sëriñ yi fi nekk nii waaye sàkku ñaan aussi ci ñi leen jiitu sëriñ Abdoul Aziz Sy Dabakh sëriñ Mansour Sy mënuma lim ñëpp waaye ñi leen jiitu nekkoon ay nit ñu sell ñoo xam ne nii ñun li ñu gëm mooy dund après dee dund am na doo dee rek mu jeex déedéet am na dund après dee ñooñu nag ñu nekkoon nit ñu sell dañ leen di ñaan aussi pour que jàmm am ci suñu réew su ngeen seetloo réew mi dafa mel ni yu bees dafa fee am wor ma dafa bugg a jóge fii sutura bugg fee jóge ensuite réew yi ñu war mooy Burkina Faso mooy euh, Mali mooy Guinée foofu yëpp ay coup d'état la boole kook li ñu fi fekk mooy jihadiste yi bon li ñu soxla ci suñu réew ak su région bi mooy jàmm jàmm nañu ñaan jàmm